mel na gàmm nit ñi jàngewuñ ci dara jikko yooyu ñuy wax yëpp léegi la gën a bari nit ñi sax dem nañ bay wax naan référence amatul référence boo ko déggee mooy royukaay rek royukaay boo xam ne kooku nekkatu fi te lam doon def ak lam doon wax du tuxu te mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu bare koy wax te am na si ñoo xam ne wuy ji nañ gàmm lu ëpp ñaar fukki yoon ak juróom ñenn ñi wuy ji ko fanweeri at ñenn ñi wuy ji nañ ko ñeent fukki at yu ba ci seen ràññee te teewut ñuy wax ne réew mi amul référence wala diine ji amul référence ñooñu kon seen guy ci gàmm lu muy jël loolu nag ñiy woote gàmm am nañ ci ab yan bu ndax ku woon nit ñi bañ ñëw jamono yëpp mag ngi daan wuy ji ñuy jàng am daax xasaayid yoo xam ci tagg yonent bi sallallahu alayhi ci wax ay melokaanam la ëppoon ca mag ña daanañ xam xasida yow lu muy teg ay jàngkat la ñu woon daanañ xam lu ëpp ci la xasida doon teg ñi si ëppoon xam nañ xam nañ ko waaye suñ demee ba nga xam ne jamono ji li ci ëpp ñu baree bari daaj bi mën naa leen a neex wala waa ji koy jàng neex leen képp moo leen tax di wàll di gàmm am na sax baat bu yéeme boo xam ne ñuy gàmm ji bu dee fii ci Tuubaa ñu ngi koy wax foo jëm ñu ne ni mu damay seetaan ci penc ba gàmm su fekkee moom day seetaan ñam fa fekk seetaan moo leen fa yóbbu woon ne ko fay fekk seetaan yóbbu leen fa ana gàmm kon luy gàmm moo tax ñi nga xam ne woote nañ buñ ñëw. قصائد يويود وخ تيون انت بي صلى الله عليه وسلم وارو بار لو قال له سين لوس ني ديكو ليرا لا نيت ني دين كو تكيل با خام دي واخ لو غيناو دنجو ديغ بوكو بونكو تيغي سام لوخو ولا جيسكو دارين كو غنا بوك دارا لا جوك تيم وايا سو فك ليك نان لا نفاي داف اك ديغلو اي قصائد يو خام ني كو جانغ سخ خمو يو قصائد يو واخ ني لا لا نكو جانغ ديكو ياق تبو واخ ني لا سيرين سيرين بي نانا وون fi ñu koy yàq kenn dafa yàqoo fi ñu koy defaree nag xanaa fi ñu koy defaree rek fi fi ñu koy yàqee ñu yem xanaa xanaa mun ñoo yem moo tax ñooñu am nañ njàng bu diis ku woo ba ñëw ci gàmm war ngaa jël xasida yi jàng ci bi yëpp wax ko ci ay wolof su su dee ay pulaar nga wax leen su dee ay séeréer sama bokk séeréer nga leeral leen ko ba mu leer leen nañ ba bu ci xam jëm duñ ndax am na ñoo xam ne bu ñuy dugg ci penc bi tàmbale na ndax njàng mi ñi dégg yag nañ ko dégg tàmb nañ ko te nit ki lu tam du duutu ko tew nam ko wara tew la motax ñi wax ne bu alxur bi ñu jàng alxuraan wa idha quri alquranu fastami'u lahu wa ansitu istima' ak insat amna nag wuute istima' moy mu jaar ci nopp jàll rek nopp yi di ko dégg kenn mënu ko bañ nopp am ko bér waye insat moy nga naan tekk di satantal ayati كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته سنج مكبنة وآية واحدة تدبرت فيها تفوق ختمة منه خلت كن يلا نجعل الجمع وآية أبيان قديس بو يفقت لواتكو نيويجي واتنا لك نخ استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وعلموا أن الله أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون ني وجم يالا لا نوي دم نك واي ني ويج نك كو وني بام نيو بار نكو جوخ ولا ما واخ قصائد يي دانك ماغي غارا ني خاج كو اي خاج بي خاج نان تان ني مانا دانك قصائد يي تاغ يونتي بي كي واخ سي ملوكانام ني ديكو ني خام لي واخون ñi di ko wax waxin wu neex fu mu defee njàmbaar ñu yëkkati fu mu ak ñam doon seqal muy seddal lànk loolu jàng ba xam lu muy wax moo koy tax xam ñaareel ba ñu joxe waxtu wu yaatu gannaaw bu loolu jàllee nit ñi laaj ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak jaar-jaaram buñ ci jógee joxaat ñeneen ñu dàng ci jaamu yàlla yonent bi doon toppoo joxit nit ñi wax ñu laaj ci ay laaj yu xóot bu ko defee bu jant bu bët di fekk bu ko di kenn du ko yëg te duñu fa dëkk nelaw nelaw ak def yeneen ca ko xas ba nelaw nag nelaw na moo xam muy jàkk wala muy am pinc wala muy ab néeg ku xas ba nelaw moom nelaw na xel àggana la jëlit xanaa woo jiwu nii ba ñëw ngir ñu li ñuy dafa nelaw kuy nelaw kay da ngay wuti ab oto bu baax bu dal waaye dem si jàkka ji lekk naan bari lool te ku lekk naan suur ma rek nelaw daal koy fëgg lu mu tëtalu tëtalu ginnaaw li ñuy wax xamu ci lenn lu dul daaj bee ko neex wala waa ji koy jàng képp moo ko fi indiwoon waa ji jàng gudd mën na nelaw tuuti su dee nga mën a mën naa fa nelaw ndax ñemewul këram fekk këram loolu it taxutoon ñuy woote gàpp dañu faa war a waxtaane ci ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox nit ñi ñu laaj ay laaj ci yonent bi sallallahu ak jaar-jaaram ak ñam àndaloo su boobaa da xam boo boo boo ñibbee sa gàmm moom deme yàlla na yàlla defal dëkk ak topp te xiir ñu faw ci teg suñu tànk fa ko yonent bi sallallahu ci fàttaliku ñetti xeetam ak noonu waaye sëñ bi mag moom nga xam ne da doon dund ci li yonent bi andi nee na amut jot at mépp gàmm la ci moom ndax juróom benn weer yi day wax li yàlla santaane ci yonent bi lay def julli ci yonent bi juróom benn weer yi des mu di ko xamle di wax la yonent bi mooy kan bari nañu jaare ci mbindam wala ñu fekk ko ci ay warab yu ñu ko fekk bu ñu waxtaanee ak moom dañ naa ko xamu xamu yonent bi waaye ñu ku jàpp ci yow bu ñàkk mu for ca lëf noonee la si dunde jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu bu ñu ko wutalee bisit bis ba sa bu ñëwee waris na ca yobul ren ba déwén waxoon na ne jënd ak mawaahibu ak muqaddamatul abdaax ak limaaxin bashir dama bëggoon a tudd nee naa waaye dañoo gis fu ñu band nett li boo xam ne bashir fa bind te mel na ne moo gën a kon manees naa jàpp jazbu mawaahibu muqaddamaat ak limaahi basiiru muy xasidoom bari la jàng ci guddi gàmmu bokki taalibe moo xam dañuy yëkkati moo xam dañuy burus ci ba boobu daal mën nañoo bari jàng yéenti xasida yooyu xasida yoo sax sëñ bi wax na ci ñoom ba tàyyi ay waxi wax am na nekk li bu ne sëñ bi dañu woon jazbu mawaahibu muqaddamaat ñooy ay fësal yi nga xam ne ku leen war di wàccoo ñoom dana mën a cëppeel àjjana ak ku dégg njàngum jazbu du dégg reeratu sawara wala ci nga ñëw jazbu la ak mawahibun nafi bu ko tanu nit doon jàng bis bu set di nuyoo itam du tax mu sàpp yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama wa barak ba tey sëñ bi nee na muqaddamatul amdaax fukki bant ak juróom benn bunt bu nekk fukki weer ñaara la